Rufisque ville verte daal nañu koy lancer ci jeudi bi yamoko 19 septembre 2024 ki nga xamni moko lancer di député maire bu ville bu Tëngéej di docteur Omar Cissé lancement campagne reboisement ànd ceeg ni nga xamni moy oser forêt ak association civisme parlons carte de vie ñu daal di koy door ci ñetti zone lu ko dalee boulevard El Hadj Malick Sy bi nek ci yoonu HLM daal di jàll ci boulevard Babacar Ndiaye Ndioro nek ci route Sukusim daal nañu koy fay door ngir mëna a jëmbat foofu ay garab li ko dal si booru tali fa jugee yi nañu koy jeexalee si li nga xam ni mooy axe bi relier rond point Sipres ak rond point AXA mbooloo mi association yi ñëpp a teewee lu nu mel kàddu yi Oumou docteur Omo Cissé ci lancement li nga xam ni mooy Rufisque ville verte. di sant suñu borom ndax dañu jàpp ni ñun yokk végétalisation bi ci dëkk ci Tëngéej bokk na ci li améliorer cadre de vie bi sànq directrice bi docteur Issa wax na ci euh, sunu mbokku capitaine Bokoun wax na ci plante ñu fi indi association Civis Parlons Cadre bi wax nañ ci l'importance communauté yi pour saytu liñ fi nara def kon ñetti acteurs yoy moy commune moy état moy population ño wara sekh mbir mi lu melni reboisement wante ñoo war a séq lépp luy defar dekk ndax ku ci ne amna lo loo mën lu sa morom mënul ñun mooy mandargal sunu doxalin depuis bi ñu falee ba léegi noonu lañ ko bëgg a doxalee dañu bëgg ànd ñun ñett ñëpp pour sotoo coono yi ñu fekk ci dëkk bi moom la ñuy def ci wàllu éclairage bi moom la ñu bëgg def ci wàllu tali yi moom la ñuy def ci wàllu désencombrement bi moom la ñuy def ci lépp li nga xam ni assainissement bi yéen a ngi dégg bi ñuy lancé palme yooyu yëpp Passy bi yéen a ngi koy dégg loolu mooy sunu mën naam loolu moo loolu moo ñu mandargal ñun kon tey dañ koy jëmmal ci ci ci.

ñu ngi défarat place gabar bi ngeen xam ñu tudd place Aly Gueye Diop defaraat koy defaraat di ngeen fa gis ay pavage ak lénen ak lénen leneen mais garab dina fa am place deug kon pour wari ni bu weesoo ak accès routier yi benen patch bi moy place yeeg parquet yeeg yoyu ñu ngi ci liggéey lu bari bari bari am na xamni nak association yi ma gis fi yag nañ ci yëngatu am na ci ño xamni ville bi leen jappalé koñ bañu nek quartier bañu nek ku ci nekk dafa ut benn place benn placette benn espace boo xam ni na koy aménager mais dugal fa garab jëmbal fa garab moo tax ñeenteelu composante bi aussi suñu plan bi am na solo boo gisee bala ñoo tey bu ñuy tëj dañuy def benn benn benn cérémonie cérémonie bon de solennelle commencé distribution plan yi maanaam di jox association yi ñoom ñu dem seen quartier li ñuy def ñun ci tali yi li ñuy def ci parc yi ci ci jardin yi ñu koy commencé ci ci quartier yi dans les bokk bokk ak place yi ñuy autour de 11 associations je pense ak nous avons prévu durant cette campagne de distribuer je pense autour de 800 à 900 plans euh, pour le reboisement communautaire ce que j'appelle moi le reboisement communautaire mais le capitaine est revenu longtemps sur les espèces kon dañuy bëgg tey opération reboisement pour 2024 mais il y a plein plan de végétalisation 2023 le commencé français je déclare je lance solennellement le démarrage de la campagne de reboisement 2024 de la ville de Rufisque ah, dans un partenariat entre la ville les eaux et forêts l'association civisme Parlons cadre de vie je vous remercie de votre attention si njeexitalu journée bi daan nañu amal ay remise remise yi nag nekk lu dul euh, remise yi nga xam daan nañu koy euh, jox ñi nga xam ne association yi nga xam ne ñooy nekk ci gox goxaan yi ngir mën a suqal li nga xam ne mooy cadre de vie ay gox si li nga xam ni député maire Omar Cissé ànd ak li nga xam ne mooy bureau municipal bi conseiller yi ak maire yi nga xam ne ñoo nekk si yeneen gox goxaan yi lu si ni Rufisque Ouest ñoom tamit daal di ñëw teewee li nu mën a joxe li nga xam ne mooy distribution euh, garab yi nga xam daan lañu koy jox ngir ñu mën ko jëmbat seeni ay gox mu nekk ay ci